damay dem ñu xool extrait théâtre ma wan leen théâtre boo xam ne neexoon na lool booy bii je pense que théâtre bii euh, moo ko lancé et mu nekk fi ñu toll ni star bu ngandee ngandee ngandee ci wàllu théâtre doomi Thiès la ñu dem xool yi Meles extrait te ñëwaat léegi ci plateau Dakar ne dort plus Meles ayca xam nga ni Dakar lu mooy sooki ku may sooki ku may sooki. meles yaa ngi lépp luy xeetu gaaw waaye moo gaaw. lan la lan meles yaa ngi nii. meles meles lay def. meles yaa ngi nii la woon. meles yi lan lan lay faj quoi lan lan lay moom lay. après non kii lépp boo ko takkee. waaw kenn du la gis. kenn du ko suulu. waaw kenn du ko sango. kenn du ko def leneen. liggéey liggéey liggéey. lépp loo bëgg a liggéey mu ngoog see liggéey. waaw waaw bu dee da ngay sàcc. waaw kenn du la gis. kenn du la gis. bu dee zone la sax. boo ko tekkee mën ngay fubal ñi ngay fubal kenn du la gis. man fubaluma de fubaluma fubal rek laa bañ fubaluma de. damaa ne la ndax su fekkee ne da ngay sàcc nit mën nga koo sàcc ba pare te te du la gis. mu kenn du la gis. <laughs> tey laa ci toj jamono. kii kay xeetu gaawaay bu ne romb na ko. ñaata nga koy weccee ko. maanaam. lii la ñan nga koy weccee ko quoi. ñeent téeméer lañ koy weccee ko. ah ñeent téeméer. ñeent téeméer. ok sa kase dafa xoosu quoi yow balaa ngay <laughs> yow ay retour ngay dégg <laughs> ay retour. maaru foo bi. <laughs> déedéet baax baax bi la baax baax bi la baax baax bi la baax baax bi la kay. ok ok baax baax bi la baax baax bi la. yàlla na waaw. lu la kenn dul gis. waaw waaw. bu dee fii. waaw. loo laaj dañ la koy loo laaj mu jox la. feneen foo ko tekkit day def day de. gis nga yow nag xam la moo la yàq quoi. Ah. di nga dégg waaye sa retour day xoosu quoi sa seeree sa retour. Eh. day jafe pour nga dégg. mais doo doo bu tase waatee sa doo dooli beneen. <laughs> du ma dooli ndax day ëpp. maraîchage yi maraîchage yi balaa ngay dégg. <laughs> Oh. ok ok kii de tey laay tukkeel jamono te jamono tukkiwul ay na ay na su ko takk dama koy takk naan yaay waay est yaa may suñu <laughs> ni Sénégal kenn gisatu ma lii war naa caa amaat dépense ñaari fan Ah. lambar lambar dana baax. Ah. maa ngi nii rek. yaa ngi compter sa xaalis quoi. yaa ngi compter sa xaalis. ah waaw waaw waaw waaw. Oh, fii gën a sob sa xaalis lu sa yoon nga mayaa ma yaa ngi compter. ñii di def di cat nit ñi Aba, nagsayagay din. Nairek tayo na layalan nagdoon kar. Tayo di nga kamantin eh. Akmeles. Oh. <laughs> Tuti e possible. Papatay lalay sachi. Bawa. Akmeles niya na. lii foo ko takk rek day def effet effet lay joxe la <laughs> papa effet laa jox dinaa la sàcc tey ba nga xamante ne dootoo ko doon xam nga sax man bu ma solee melesi mënoon naa bañ a yoot waaye fii laay bàyyi sama dàll pap yow de dootoo ko doon leen <laughs> xanaa beneen nit waaw Mataila anahitaji. Okay. Okay. Okay. Hein Papa. yaa may gis. moom la gisul woon danaa la mbéj. ah kay dal naa kay papa gis nga ma. waaye yow may romb di ma la indi woon ci ma. maa mën a fen. papa melesi la papa papa la meles nii ma takk meles moo ma wax ne naaj ma naa sàcc ne te kenn ma gis papa. lii. xam nga nu ma ko ko de ndax ma ko sax. yaa mën ma de papa arab na ko naan sàngara papa. Eh, ah yow noppil barki yàlla du lii nga doon seet ci man. seet moo ko ci yow. ah kon lii nga takk nii maanaam da nga koo takk ngir bu ma la gis. waaw moo tax nga may laaj ndax maa ngi yàgg maa ngi lay. waaw waaw waaw papa boo dooree di nga gaañ de xoolal ni ma toll papa papa xoolal ni nga toll. léegi du xam nga ni maa ngi lay gis. waaw xam naa ko bu baax. Ah, xam naa ko xam nga ni li nga takk jëriñu la. xam naa ne baaxul kay ah, papa waaw léegi du ma la door du ma la def dara. Mm, jërëjëf déglu déglu ma ma wax. Mm-hmm. yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg kay papa. da ngaa ma mag bàyyi fu fukki ju nekk juróom papa. lii xam nga nu ma ko amee. xam ma ko aram daay daan sama doole. dëgg la kay ca marché bee laay dem di jambab carotte di puus a puus. jambab carotte papa. yaa ngi may dégg. waaw papa yàlla wërsëgal ma lii ma fas yéene cooy dépense nga di leen koy roñ. loolu yombul. yomb nag mag. yaa ma mag fukki téeméer ak maay wax yaay wax maay noppi. dama bëgg gone nga. nga wuti euh, liggéey. waaw danaa wuti boo goree mat euh, ñëw saam jaay sax liggéey la. waaw papa. waaye yéen gone tey yéen. da bëgg di sol lu rafet. di am lu baax te du ngeen ab liggéey. waaw loolu loolu mënul nekk. jàpp waay sama nekk jógal dem jógal dem booba yàlla foo gisati kuy jaay melas yow di nga ni ko ay kii téema xam nga ni Dakaaru neex